Nous avons, ànd le euh, maître Abdoulaye de def wër Sénégal moo première campagne électorale élection présidentielle dem Casamance maa ngi ko ndeysaan ni ñu démé ay époque tertu bu ñu fa tertu à l'époque euh, suñu yaram ñom ñëpp daw mais conditions yi ñu doon démé campagne électorale car ñu à l'époque et était là Ablaye Faye était là braver toutes les difficultés Eh, res moom moom moom adduna mi yëpp Wade PDS xamul leneen mu jaral ko lu nekk nag jaral ko jaay bakkanam